asalaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi baaxoo di seetaan seen sit bu mag bi di leerlu TV leerlu leeral askan wi ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax man Awa Ndiaye alliance leena nee naa leen bépp information bu am fépp fu mu munti di nekk dinaa dem wan leen li nga xamante ne moo xew foofu rawatina nag si dëkk bu sell bii di Touba tey nag ñu ngi fii biir Touba nekk marché Ocass si biir réseau bi gis nañ ne dëkk bi fan yi passé rek woote woon nañ di bale di lokkati canal yi waaye tey bi ñëwaatee fii si biir réseau bi gis nañ réseau yi gis nañ canal yi nu mu mel gars yi nañu bàyyi yi xamante ne mbalit yi ñu jël di ko def si canal yi nañ ko bàyyi te xamante nag seet dafa war ñëpp rawatina nag si dëkk bu sell bi. xaari Mbàkke moom la ñu taxawal ni moom moo fi taxawal maire bi. ñu gis ko bobu legi nak mi ngi laxasaayu tak ndigam rek nek ci liggey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi sëñ bi nak lañuy bay nak mu daal ñuy teunk li nga xamantene mo taxé jug liggey bi ni nga xamantene ne muy set setal bi nga xamantene ñetti fan yi yëpp ñu ngi ci bobu legi ta taxul mu dem tudd kërëm Mbacke Balla bu ko neexon mu tudd kërëm waye def ko sëñ bi ñi ngi lay bay nga daati wax ak askan wi li nga xamantene mo wara set setal bi ñu koy def eh, jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah Khadim Mbacke Sam euh, premier vice-président de la commission assainissement au niveau de maire, maire de Touba. ñu ngi leen di nuyu ñeen ñi dégg suñu carte ak fu mën a noonu ak yéen ñuy wax ne lii nag liggéey la boo ne at mu bu nawet bi jub danañ koy def maanaam ngir sekkat ci kan yi war a yóbbu ndox mi ci li wër jumaa ji ak fu bari ci dëkk bi tey nag ñi marché Ocass ko ak eh, wa Touba ci kanam ak wa ONAS ak population bi liggéey ci marché bi mbooloo mi liggéey ci marché bi sa fi dekk seigne Touba la euh liñu def lepp ci liggéey seigne Touba lañ koy delo wat ndax maire Touba buñ ko mëna jappé dar la ci daara seigne Touba yi ndax ñafa nek témer ni ndigal mo leen fa yobbu kon ñi ngi fet lu bax suñu jaayante ak seigne Touba diko jaar la ci sëriñ Muntaxa mi toogee jotaayu sëriñ Touba ak suñ jooriñ ji mu teg suñ kanam muy sëriñ Siid Mbàkke suñu blaat maire Touba ci kilifteewu sëriñ Siid la nekk waaye lépp nag day dellu ci ay taalibe liggéeyal sëriñ bi noonu nag yàlla naa leen ci maire bi mu sëg ko waaye bi ñëwee fii ci liggéey bi nag gis nañu ne ñi fekk ñëpp jàpp nañ ne ñoom ñoom ñoo ci yem ndax mbooloo mi bari na maire yi ñetti fan yi ñu weesu mobilisé na téeméeri nit yoo xam ne dafa ànd ak ñoom ci liggéey bi démb ak bëri ci la ñu xëy tey nag ànd ak ñëpp xëy si marché bi daje fekk ñooñu ma wax léegi fekk fi waa marché bi ñoom ñëpp ñu takk seen digg nag ànd ak ñun liggéey bi. loo mën a jàpp na nga ko génn na ko bàyyi nga génn nga ñëw jàpp ci mbalit mi ñu balee lii mu set wicc parce que lii yaakaar naa ne lu baax la njariñ la boole ci jaamu yàlla gu mag a mag la xoolal canal yi. parce que xoolal canal lu ne nga fi jóge fii saako mbalit saako dàll saako yére lu nekk ñu jëlee ko fi loolu c'est pas normal du jaaduwul du dëgg du yoon nit ñi nan sensibiliser nan nekk nit te bàyyi seen dof dof lu gi ni nekk ab canal du ay mbalit du ay ay saako ay nangam ay suuf ak ay nangam nag canal pour ndox la ndox ndox ci war a jaar mooy mooy génn. ñu noonu la ñu doon kilifa yi àndandoo place boo xam ne baax nañ ci yow wax ak leen si place ñu baleel ñu semence bi dama leen di wax ne leen ginnaaw ñun balewul dañoo ñëw di ñu baleel dañoo war a tëj bi dëkk ñu place toog ñu baleel ñu ba marché set ñu xeer ñu loolu lañ nekkoon ànd nañu tamit commissaire jox nañu ay éléments ñu ak éléments yi liggéey nañu liggéey boo xam liggéey bu sell boo xam ne amul benn benn benn jafe